donc ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen sant dañoo ñëwoon tey ci cadre collectifu candidat yëpp collectif C25 wu massawu d'abord responsable ak militant yu xalifa Ababacar Sall yi nga xam ni dañ leen a song cong gu metti ak violence boo xam ni bu jéggi dayoo loolu nag day firndeel rek ni bëggu-bëggu ñi fi nekk mooy faagaagal seeni adversaire dinañu ko jéem ci ay pexe ñu lalu ci manipuler justice bi dinañu ko jéem ci ay loi yoo xam ni yi tegewul ci yoon dinañu ko jéem sax ci ay technique ak ay mesures administratives pour faagaagal leen donc lii dafa ñëw dolleeku ci rek donc li muy wane nag mooy takkute gu mat sëkk la laaj booloo gu mat sëkk la laaj ànd gu mat sëkk la laaj ci opposition bi pour que li nga xam ni lii moom la bëgg moom candidat sortant bi mu bañ a am lépp lu ñu war a def ci opposition bi lépp lu ñu mën a utiliser ci jumtukaay dañu ko war a utiliser ba ca ci pandaw bi muy carte électorale bi le 24 février pour que li mu bëgg bañ a am ko incha allah mais xeex bi lépp la lam